nuyu nañu leen ziar leen jox leen seen wàcc wàccuwaay di ziar kilifa diine yi waaye nuyoo boobu dañ koy teg suñu loxo sëriñ suñu loxo maam muy sëriñ Baye Assane Seck moo di ñu koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér waaye di ziar bu baax chef village bu ba di sëriñ Alassane ñaana sekk di ziar monsieur le maire Talla Diagne ak képp kuy kilifa rek buy yeewoo fi ci cana ba bu ngeen gisee tey fi ñu leen nuyoo rek ngeen xam ne tey ñu ngi cooti buñ ne cooti rek xel yëpp day dem si suñu maam suñu soppe ba suñu xarit ba muy Baye Abdourahim ñuy ñaan rek yàlla na xippee àjjana waaye dañuy rek jox kàddu yi ki nga xam ne ci njabootam la bokk muy sëñ du sekk mu fàttal ñu rek tey lan moo waral li nga xam ne moo di woote bi ak ndaje bi. ñu ngi lay delloo nuyoo eh, di leen tatagal comme niñ ko baaxoo di ko defee rek jamono boo xamante ni eh, liggéey bi jot na fii ci cooti di dëkku Baye Serigne Abdourahim Seck ak wa tabaarakallaahu macha allah ñu ngi leen di dalal beneen yoon di leen wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jii ci bés bi nga xamante ni mooy bésum ngóob mi waaw. Baye bi est-ce que mën nga ñoo fàttaliwaat rek euh, tey ngóobu lan lañu fi ngóob ndax ngóob buñ ko waxee bari na lu ñuy góob waaye nga fàttaliwaat ni rek tey lan moo waral euh, li nga xam ne moo di woote bi ak ngóob bi ngóobu lu mu doon. Eh, jërëjëf soxna si niñ ko daan defee at mu jot rek ngóob mi tey jii ngóobu dugub la eh, di toolu Baye Serigne Abdourahim Seck moom mi nga xamee ne moo nekkoon juróom-ñetteelu xalifa maam Amari Ndaak Seck am ni mu ko baaxoo daan ko defee noonu jëkk muy nekk sëriñ Canaba bi mu nekkee sëriñ Canaba waaye itam bi mu fi bàyyi ko tey jii bàyyee ñu xalifaam Serigne Ibrahima Seck. yàlla na ko yàlla dëgëral sàmm ko yiir ko aar ko eh, ba naal baayam yi ak mébéti baayam yépp mu àggale ko ànd ko ak rakkam yu baax yi eh, yaakaar naa ni ñëwoon nañ fi xam naa war naa toll weer ci gannaaw àndoon ko ak yéen ci toppaat dugub jooju dugub ji ngir eh, feddliwaat kóllëre googu waaye boobu itam li ñu ñaanoon yàlla mooy yàlla nañu yàlla may ba ñu dellu si waat fi ci jàmm ak salaam fekke ko ñuy góob tool boobu dafa mel ni ñaan googu yàlla nangu na ko tey wax dëgg yàlla mbooloo mi dellu si waat nañu fii ci mm-hmm. cooti mm-hmm. Euh, nañ fi daan ñëwee démb ak bërki démb mm-hmm. jëwriñ yi kenn ku ci nekk ñëw nga ànd ak mbooloo ma nga daan àndal bari nañu lool nag fa tabaarakallaahu ñu ngi fii ci gannaaw xam naa di ngeen fa yegg kenn ku ci nekk ci jëwriñ yi ngeen tàllal ko seen micro laaj ko ci bés bi moo wax ak ñamu àndal ak ñamu représenté waaye ñun dañuy feeñal rek suñu mbekte ak suñu kontaante ak it di sant yàlla di sant suñu maam maam Ahmadou Ndaak Seck waaye di sant maam Momar Talla Seck waaye di sant Baye Sëñ Abdourahim ndax wax dëgg yàlla liggéey bii nii moom mooy ki nga xamante ni moo ko jëmmaloon mm, ci jamono ju yàgg waaye jamono ju jafe waaye gëm-gëmam ak volontaire ak jomam ak ngoram moo ko may liggéey bi mën a yegg si fii nii te ngëm-ngëm boobu mu amoon demul rek yóbbaale ko daf ko transmettre woon ci ay njabootam wan leen ni leen yoon wii mooy yoon wi seen maam tànn te man ci lay jaar waaye dinaa leen ci yar ba bis bu ma fi jógee itam ngeen mën a continuer yoon boobu ci yoon boobu rek la ñu nekk kon ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu mboolem njaboot maam Omar Ndak Seck rawatina xalifa bi Baye Serigne Xasan ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara te di ko ndokkeel ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla dolli ko fee yàggal ak njabootu maam Omar Ndak gépp waaw. macha allah dañoo def seetlu mu doon loo xam ne ñëpp seetlu nañ ko ku xam njabootu Mame Mbaye Ndack Seck ñu xam ni ñu mën a toppee nañu waaye ñu mën a gunge seen i kilifa nañu. waaye dañu def remarque ngeen doon ci royukaay njabootu Baye Abdourahim sekk bi fi Baye Abdourahim jugee ki nga xam ne moo di taawam moom moo fi toog wax nañu ko taaw mooy donn ki nga xam ne mooy di waajuram di sëriñ Ibrahima sekk rat mu mate ko loolu waaye ay rakkam gunge ko mu wax ko ci ay kàddu yu bari dalal nañu ko foofu ca Thiénaba TV waaye mu fësal ba sax xolam tooy mu wax seede ni ko ay rakkam gunge ni jàppalee loolu mu doon loo xam ne lu rëy la loo xam ne képp ku ko dégg rek te toppoo sa mag sax di nga ci jël leçon ngir mën a gunge sa mag bu baax a baax ci li nga xam ne ci la nekk loolu lan nga ñu ciy wax. Ah, jërëjëf soxna si laaj nga laaj bu am solo. Mm-hmm. mën naa ne sax laaj la boo xamante ni laaj bu daw yaram la. Mm-hmm. ndax diggante nit ak njabootam su ma la ko doon misaal dama lay wax rek ni la picc ak i dunqam. Mm-hmm. kenn ku nekk xam na ni picc. bu amul i donc mënul mënul naaw mënul dem fenn waaye su amee ay dunqam nag garab gu ko neex rek mën na faa dal loolu mooy njaboot ak kilifaam maanaa njaboot lenn rek mooy taaram mooy mu topp ci ginnaaw kilifaam déglu ko euh, euh, dara jaal ko jox ko li nga xamante ni loolu la am ci moom waaye kilifa yi itam li ko war mooy jël njaboot xam ni moom la yàlla def muy kilifa mu taf ko ci wetam malgré ay manqué manqué am waaye yow la yàlla matal ngir nga doon kilifa gi nga gëmm ci ay manqué manqué am tette ko taf ko ci sa bopp loolu su amee rek yaakaar naa dañuy gis force boo xamante ni force bu spéciale la loolu nag macha allah allahuma la aduru yàlla def ko defal Baye Serigne Abdourahim Seck bi mu fi jógee ak léegi yàggul waaye kenn ku nekk gis na macha allah mhm. njabootam li mhm. ñu noose woo ñoom ñëpp nekk benn bopp mhm. am genn kilifa topp ci ginnaawam kilifa googu jiitu ñoom ñu topp ci ginnaawam muy Serigne Ibrahima Seck tey jii boo duggee ci biir mboolem lu Baye Abdourahim Seck jur ci góor wala jigéen bu dee jigéen ñi boo demee ci waañu ñoom ñëpp da leen fa fekk su dee góor ñi ñoom ñëpp ñu ngi ci waaram xam nañ ni ñu doon liggéeyale Baye Serigne Abdourahim Seck parce que dama mës a dégg muy nettali benn xissa bu doy waar. Mhm. mu ne dafa am benn nitu yàlla bu mag. Mhm. boo xamante ni yàlla daf ko mayoon. Mhm. nit ñi dañ koy rang saa su nekk benn bis mu woo doomam. mu ne ko waaw lan moo tax bu nit ñi ñëwee di rang doo rang mu ko ah comme que bàyyi man ak yow ñoo dëkk ci kër gi mu ne ko waaw su nit ñi ñëpp demee bàyyi rek nga fiy fekk. waaye del def del def li ñëpp di def. Baye Abdourahim noonu la yore woon njabootam. kenn ku nekk xam na ne Baye Abdourahim Seck képp ku xam. ci ñaq nga ko xamee mhm. Baye Abdourahim xamul woon tàllal loxo mhm. Baye Abdourahim xamul woon naxaate mhm. euh, loolu sax su ma koy wax tekki wut ni daf koy def waaye damay joxe exemple rek maanaam nit la koo xamante ni dundam daf ko basé wu woon ci liggéey liggéey nag bi nga xamante ni moom la gënoon a favoriser mooy mbay ba ku tudd mbay fii ci région bu cees di nga wax Baye Sëñ Abdourahim Seck ñun ñi dañoo gimmi rek ci keppaaram mu di ñu yóbbu tool ya ñuy bay di ànd ak moom ba ni ñu fi jógee dem daara jàngi bi ñu ñibbisiwaatee ak lu ñu mën a indaale ci xam-xam taxul mu bàyyi bay bi yàlla dogalee mu nekk mag ba ni mu nekkee Serigne Thiénaba dafa gën a continuer xam ni lii nii mooy yoon bi nga xamante ni moom la ko bàyyam bàyyee ndax ku tudd Mame Momar Talla Seck faaw nga tudd Thiénaba faaw nga tudd jumaay Thiénaba ndax buñ nee la maam Momar Talla sekk moo tabax jumaay Thiénaba ci 1907 mhm. te daana wax ni juddul jumaay Màkka ak jumaay Madina mhm. sama jumaa ji moo la gën a lew mhm. ndax suuf si ma ko def fi laa liggéeyee li ma ko li ma ko tabaxee booba li muy junj mooy dama dama ci li ma liggéeyee jumaa ji mooy maa ko bay rek man ak sama njaboot kon ku mel noonu nag su la meññee euh, da ngay da jaar ca yoon woowa Baye Abdourahim ci yoon boobu la jaaroon mu ngi ci mbay mi ñu ngi ci daara ji daara jaa nga noonu ne fa tabaarakallaahu ngeen fa léegi xale yi di góorgóorlu di jàng mokkal alxuraan loolu mooy ndono li nga xamante ni dafa palpable nga koy mën a làmb daj ko leneen li ci des mooy jaamu yàlla mu dellu ca ñett yi nga xamante ni mooy ndénkaan ak maam Amari Ndaag yi nga xamante ni neewoon na mooy sama ñett yi te du ñeent waaw mooy àll ba àlli wa allahu akbar boo xoolee lii nag di nga xam ne njabootu Baye Abdourahim Seck li leen seen bàyyi bàyyee ñu ngi ciy góor góorgóorlu bu baax seen kéemtalaay kàttan te loolu incha allahu rabbi day jëm kanam rek waaye di jëm gannaaw mhm. ndax lu ñuy jàngati nekk waaye lu ñuy tere rek moom moo fi nekk macha allah doguma la waaye waxuma sax doonu gi ngeen ko doon ci seen maam wax nga ko waaye it ngeen doonu ko ci seen wayjur bu góor waaye sëñ Ibrahima it bañ ko dalalee daf ñu xamal ni wayjuram bu jigéen ku amoon Pastef la ci li nga xam ne moo di ay tool mu nit li ñu ci ay histoire yu daway yaram yi loolu ba ñu ci déggee ni rek jigéen dafa war a tarbi waaye jigéen it euh, bu juree njaboot njaboot yi dinañu fexe bay roy ci moom waaye dañu seetlu ni mbay mi tamit da ngeen ko doonee ci seen wàllu yaay. dëgg la waaw loolu day. yaakaar naa mën nañ ci wax lu yaatoo yaatu sax lu xóot a xóot ndax kenn ku nekk xam na ni barke yàlla du ko may n'importe qui kenn ku ne yaa koy sàkkul sa bopp sàkkul ko sa njaboot yàlla may la ko yàlla dafa dogal itam ñun suñuy suñu woy jur yu jigéen yi yi nga xamante ni ñoo nekkoon ak Baye raxiim yaakaar naa ni ñun njaboot gi dañoo gimmi rek gis ñuy ànd ak suñu woy juru góor di ko jàppal machine di ko wommatal kon yaakaar naa ni ñun war nañoo mën a yaakaar barke ndax loolu suñu woy juru góor moom moo ñu ko doon nettali njëkk ngeen di juddu li nga xamante ne suñu woy jur yu jigéen yi doon nañ ko ko sonnal loolu moom nettali nañ ko budul benn du ñaar te ñun it bi ñu ganee jamono gis nañ ni loolu dakkul ba ñi ñi jot dem alaaxira ku mel ne sama woy juru jigéen fa tabaarakallaahu keroog bi bi mu génnee àddina mhm. eh, sëñ Abdourahim da ko seede seede boo xamante ni kilifa yi fa teewoon ñëpp macha allah seen yaram dafa daw. seede ko seede boo xam ni ñoom ñooy ay kilifaam xam nañ ni kii li mu wax dëgg la. te mooy ku ko ku ko jàppale woon la. bu bu li li li mu réalisé daal mën nañ ni euh, suñ ko mënoon a wax mën nañ ni su doon cent pour cent. mën nañ ni soixante yi moom participer na ci ba loolu mën a am. Euh, te moom it dafa am lu mu dëkkaloon euh, ci ci ci ci kanamu njabootam daf daan wax ni na ngeen mel ni. ci seen bàyyi silatement ni mu mel ci yaram xam nga yaay buy digal loolu doom mooy bëgg na doom ba bu am barke maanaam na nga tafu ci sa bàyyi ba mel ni silatement xam nga silatement moo gën a jigéen nit ndax moom lay jiital ca biir euh, yaakaar naa ne digal boobu noonu njaboot gi yëpp dégg nañ ko moo tax ñun ci suñu keppaar way jur woowu ci lañu ñu euh, gimmee mu tarbiyee ñu jàngal ñu xamal ñu àddina ñu nekk ci keppaar googu ba tey mu bàyyi ñu fi nag bàyyee ñu mission boobu ñu continuer di ko doxal kon yaakaar naa ni loolu lu am solo la loo xamante ni jigéen ju nekk ndax yàlla lim am mayewu ko daf koy jaay il faut rek nga nga nga nga nga am nga jël nga wut njëg gi jéem ko jënd waaw yàllaa fi gën a mën a maye waaye du may nit nag lu mu soxlawul nag waaw loo ko ñaanul amaana du la ko may wala su la ko mayee itam du ko bàyyee ak yow waaw kon yaakaar naa ne loolu moo indi lii lépp rek waaw moo tax njaboot gi moom ci loolu lañ nekk ci la ñu judd ci lañu yaru ci la ñu màgg ci lañu ñu fas yéene incha allah rabbi continuer ci. moom nañu la ñu bàyyi la rek nga nuyoog bokk téléspectateurs yi lay seetaan nga fàttali ñu waaj ñu tur bi rek ak fi nga bàyyeekoo. waaleykum salaam wa soxna si ñoo ngi lay fay eh, ñoo ngi leen di ñu ngi rafetlu teewaay bi. ak dikkin yi ak ni ngeen taxawee ci toolu baay Abdourahim bii maam Talla Sëñ Ibrahima baay Alpha ba ci Baye Abdourahim Seck ñu yàgg fee ñëw yàgg ko ñaan yàlla ah, mu defal nu ci ndam ah, li nga xam ne mooy yéene mag ñi ci tool bi ñu di ko woote ñu daan fi ñëw di xale yi tuuti ba suñu jonni tey ñuy ñëw di ko fekke mu réccu ci dara fa tabaaraka llaahu ahsanul xaaliqiin kon nag su ngeen ñëwee tey laaj nu seen xalaat sunu xalaat ci tool bi dinañ leen ko wax tool bi barab la boo xam ni barabu fajukaayu ajo la ndax loolu loolu noonu la ko fi mag ñu fàkke woon kon fa tabarikalla ahsanul xaalixiina képp ku fi ñëw ñëw ngir yàlla ak mag ña incha allahu loo fi ñaan yàlla yàlla dina la ko defal kon nag eh, noo ngi leen di sant ci taxawaay bi gis ngeen mbooloo mi fa tabaarikàlla seen taxawaay ni ñu mel tool bii ku gis nii ñu ko liggéey gis nii mu mel nga xam ne lii fa tabaarikàllaahu liggéeyub mag ñaa liggéeyub mag ñaa nag seenum liggéey amul tànk ginnaaw tànk kanam rekk la jëm la am fa ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di ñaan yàlla lépp lu fi waay ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke mag ña yàlla defal ñu ci ndam defal ñu ci barke am nañ ci yaakaar ndax yéene yi ak pasteef yi mboolem ku fi dikk tey rek sa yéene ak sa pasteef rek moo la fi indi mbir nag su fekkee yàlla dafa def nga ñëw di liggéey te yàlla kese tax ak pasteef akuk takku akuk ngëm incha allahu loo loo ci bëgg rek yàlla dina la ko defal ci barke maa ngi sant nañ yàlla julli ci yonent bi di sant ñi nga xam ne ñoo woote tool bi ñu nekkal fi mag ñi muy si Ibrahima ak ay rakam ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci barke Baye Assane mi nga xam ne mooy seen sunu seen kilifa di sunu kilifa nu ñëpp tey di ñaan yàlla yàlla guddal aw fanam yàggal ko ci sunu kanam ci barke yonent bi sallallahu barke Amari Ndak barke Maam Taala barke si Ibrahima barke Baye Alpha di law ba ci moom mi kon yàlla na yàlla euh, euh, defal na fi tawfiix def fi jàmm ak salaam ak sutura ak teraanga nu yàgg koo fekkee yàgg koo tal fa tabarika la ahsanul yéen ñi nga xam ne yéen waa média it ñoo ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay rafet na jamono bu nu fi ñëwee gis nañ ni ngeen taxawee kon nag fa tabarikal yal na yàlla jàppale leen seen rajo bi yal na yàlla defal leen ci ndam lu koy seen jortu nu bokk ko fekkee nun ñëpp fa tabarikal ahsanul xaalixiin loolu moo doon kàddu yi rek ñoo ngi dellu ci waar ndax noonu ah, mu xaddam lañu ci dëkk bi mu xaddam lañu ci yoon wi kon nag ah, ñoo ngi koy sant yàlla di ko sant mag ña it nag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 Eh, sama tur mooy Oustaz biram Gningue ñun nag fa tabaarakallaahu cuuti gii sunu baay Abdourahim sekk ba mu koy woote booba nekkagul xalifa muy ñëw gàdd bis bu ne di nu woo ñuy ñëw di ko fekki ba ba mu nekkee xalifa ñuy ànd waa gàdd ñëpp di ko fi fekki bi mu fi jógee doomam ju baax jii di sëñ eh, Ibrahima sekk wuute ko fi fa tabaarakallaahu na ko baayam daan doxale mu jaarale ko fa ñuy fan daan jaar ak baayam ñu jaar ko fa ak moom moo tax cuuti fa tabaarakallaahu mboolem ku ku dëkk gàdd ak lu wër gàdd ak lu wër cuuti danoo takku ànd nekk benn di liggéeyal jëwrin joo xam ne fa tabaarakallaahu liggéey ko liggéeyal ko liggéeyal mooy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku nekk xam na ko ca maandu ga ca tabu ga ca laabir ga ca dégg ndigal ga ca mën a muñ ga ca mën a topp ay magam ci defar leen ci saayir ak ci baatin moom la sëñ Abdourahim Seck nekkan ba jóge fi kon su fi ñugee ñi mi fi bàyyi bàyyi wunu dara ci li nga xam ne moom la seen bàyyi doon def ñu taxaw di ko def kon ñun fa tabaarakallaahu dañuy delloo mbattu ca ndaala mooy dunu lépp loo xam ne sëñ bi bàyyi woon nañ ko fi jël nañ engagement cent pour cent di ko def fii ci cuuti incha allahu dunu ci bàyyi dara salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw sëñ Mori Diouf fa tabaarakalaaw bu gàdd ngay moo daan taxaw tool bii ci saa yi rek ci baatin di ci wax di ci jëf bu jëfee ñëpp kontaan su waxee ñëpp kontaan bu amul ku dëkk gàdd amul ku dëkk Ngole amul ku dëkk Jagasaar mboolem lu baay Abdourahim yoroon Serigne Mori Diouf moo daan taxaw fii di ko wax tey jii fa tabaarakallaahu yàlla wutal na ko moom it fa ndax yàlla bàyyi ko ndax ko bàyyi mooy nga jóge ci place amoo ko la taxawal ci place waaye fa tabaarakallaahu moori fu mu taxawal rek incha allah ñun waa Gadangay jël nañu àndandoo nañu ñëpp fu mu daan taxaw rek ñu taxaw ko fees ko lu raw ni ko moori daan fees asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. fa tabaarakallaahu ñu ngi kontaan bu baax wax waxaat nag du bari wax am am yu ñu kii rek bëgg ko waxaat li xamal ni cooti gii comme ni ko kilifa yi waxee rek ni ñu daa àndi kilifa yi di fi ñëw noonu lañ fi ñëwee ba yàlla def Baye Abdourahim nekk fi di fi woote ñuy ñëw di ko fi fekk fa tabaarakallah ahsanul xaalixiin mu taxawee tool bi taxawaay bu rafet bi mu ko taxaw ndax ku ne xam na ni ku gis tool bi ak ni ñu ko liggéey xam ne Pastef ak liggéeyu mag ñi rek moo ko moo ko àggal fii di sant yàlla nag di julli ci yonent bu baax sallallahu alayhi wa sallam di sant suñ Ibrahima ak rakk mi mu fi nekkal nga xam ne moom mi ngi fi ci ndigal rek ci ndigal re ci ndigalul xalifa bi fa tabaarakallahu Baye Assane Seck kon nag fa naa ni Euh, euh, fii ñu ko bàyyi ku ne xam nañ ku fi ñëw ki ñu bàyyi xam na mat na liñ ko fi bàyyee kon nag jërë ngeen doon loolu rek lañ ci amoon te ñu ne jërë ngeen jëf. maa ngi tudd Talla euh, nekk sa doom ci Baye Abdourahim Seck nekk taalibe li nga xam ne moo ñu fiy tax a ñëw Baye Abdou yàlla ñëw booleeg moom ay doomam di sëñ Ibrahima Seck mi xalifa si alfa ak Serigne Mbaye ak Serigne Ousseynou dépp nekk ay xale yu ndaw bi léegi yàlla boole ñuy ànd ñun ak groupe bi nga xam ni ñuy Alaaji Sarr ñu xàmmee ko ci ràññee ci Modou Kumba dana ci Alpha Ndaw as mbuub sunu mag daan ñëwee ci mbay cuun ak sunu nijaay Ibou Khoule ñu ànd ne ci kër gi di jàppale li nga xamante ni si mooy Baye Abdou ci taxawaayu kër gi fii ci cooti ak kër gu mag euh, bi ne tawal bi nag ñu def ma président organisation bi nga xam ne man maa jiite waañu cooti wi ak it waañu kër gu mag gi ci ndigal Baye Abdourahim kóolal googu la ñuy sàmm bu góor gu jógee tam ñu koy ñaanal sëñ Ibrahima ñëw ñu feddal loolu ànd ak moom di ko doxal moo tax mooy loolu nga la sunu teewaay tey fii ci cooti wax nga ko kóllëre la ndax lu yàgg la depuis bi fi Baye Abdourahim nekkee nga ko dala gunge ba tey mu euh, jóge fi macha allah njabootam ne fi taawam di sëñ Ibrahima seek nga wéy di ko gunge loolu ban mbégte nga ci am mu doon kóllëre bu am solo. waaw sant yàlla rek ndax kóllëre dafa am solo te péete am solo olof Ndiaye dafa wax ni képp ko ragal péete rek euh, da ngay am am lay woote ñun ku xam na ni Baye Abdourahim dañoo jur après nu nga ko ñëw oof goo xam ne ñëpp ko ñime woon kenn mësu koo ñooru baa nga di ko ragal ndax mbaaxam ak ubbi koom ak bëgg doomu aadama ak bëgg a boole naan toog mu génn lool pilaaram toog ñu génn di waxtaan mu ñu yee ci àdduna ci yu baree bare baree bëri yu jàng ci moom loo xamante ni sii dañoo yokk jom yokkuñu fulla ak fayda ak it xam nan la ñu nekk ak kilifa mu nekk ferte boo xamante ni si ba àdduna yu tukki ñu fekk ñu ngi man dañ koy jéem a feddali mais duñ ci duñ ci dellu gannaaw moom incha allah ba soobee yàlla. a marqué woon rek ci waaw li ma gën a marqué ci moom daal mooy oyof te yàlla dimbaloo ko muy kilifa gu dul fayanto ndax yàlla dimbalu na ko euh, maanaam amoon na yërmaana ci nit amoon na ñeewanti te ku mënoon a boole la te nag lu jafe da ko am da koo defoon sëriñ la boo xam ne dafa nekkoon macha allah sëriñ international dem ci réew yu bari xam lu bari te boo gisee da ngay jàpp ni euh, ndax oyofam ak seddam tax day bàyyi lépp mu sedd loolu bokk na ci ni ñuy jigee kilifa di ko ci roy kilifa doo am xadar doo boddi doo soxor doo siis doo sànni kenn da ngay woo ñëpp boole leen taf sa wet ndax képp ku ji ku ne kilifa rek di nga yilif ku ne waaye da nga xam ne ni nga koy seere ba ñëpp dañuy mujj lu waaye xaw a da doy waa da nga mujj sa kersa di nga fekk dina la modifié ba nga dugg ci kiir gi mu lay yiir ak it yeewu gi mu yeew woon ci àdduna daal waaw. Jon laa tudd dëkk Kër Baara ah mën naa ne maay borom dëkk bi ndax borom dëkk bi ñoo bokk ndey baay mu fab lépp teg sama loxo ma nekkal ko fi nekkal fi mbooloo mi. moom ak waa tund ak waa dëkk bi yëpp ñu ànd ceeg moom nekk fi. Ah, di wétlente mënuñu digal dinu digal dinu tere yàlla def na lam nuy digal sunu njëriñ dong la lépp lu muy tere it sunu loraange rek la ah nuy ñaan yàlla na yàlla yokk leeram ca barsàq ci barke mam Amari Ngoone Ndaat ndax dekkal na réew mi fii deewoon na parce que nen fii fii la ñu yaroo cuuti sek fii la ñu yaroo ci kanam Baye Ibrahima Seck ba fii mujj na gent ba bukk yeg tili yeeg yëpp dëkk fi ak ñi eh, dox nga xam ne dañuy far lu leen lëwut moom doo nga leen fi eh, doon eh, fii la ñu daal lëboo lëboo bàyyi dikk daal di koy sancaat defaraat ko ba mel na mu meloon na mu meloon si maam Omar Ngoon Ndak na mu meloon si maam Taala na mu meloon si Baye Ibrahima kon nag noo ngi ñaan yàlla yàlla yokk leeram ca barsàq ndax boo ko gisee tey réew mi fukki dëkk ak ñett may na leen fii courant loolu bëgg yàgg nañu koo bëgg euh, yàgg nañu koo bëgg waaye li ma ko waxoon rek dama ko ne bis boo nekkee borom cere ba nu bokk ci cene ba nun waa Kër Baara tund wi yëpp kon nag lii war a euh, firi ko ndax boo ko gisee tey lu toll ni fukki dëkk ak ñett kenn ku ne may ko courant mu leer nañ yal na yàlla gën a leeral euh, barsaqam lii ñu fi liggéey nun li ma ko li ma leen di wax toujours bu Baye Abdou wootewul bis rek dama naa nawet bi du baax waaye saa bu wootee rek am naa daanam xel ci nawet bi kon nag lii féeri na ko tey boo gisee li fi nag ci tool tool yi tubaarikàlla li fi nag tey ëpp na junniy te yaakaar naa boo sàggoon tool bi du jeex kon nag xam nga loolu gaynde la ah kon nag ñun itam wax dëgg sàll moom mooy di ko sant gën koy yaakaar gën a jël yaakaar yëpp teg ci loxol waa këram ak loxol ba Assane Seck mi nga xam ne moom fi yàlla teg Baye Assane Seck keroog ba mu nekk xalifa moom itam dafa yoon yónni nañ si àll yi ki yoon kër Baara maa ngi koy kii moom la ma sëñ Mamadou ñoom ak sëñ Ibrahima la ñu ma wax kon nag am na fu mu ma teg keroog bu Baye Abdou Moussa ñëw fii cooti def fi benn nekk dong dadaa jóge fii ñëw kër Baara ma nekk ak moom suba euh, bi ñu julli tisbaar ne fa julli julli timis julli fa gee ma ànd moom ba ci néegam mu mu kii mu mu tëdd fii moom kese ñeante ma ñeante ko lool waaye ku fi àgg tey da xam ne gaynde bu ñaay xale mbaam doom jaata kon tey yii ku fi ñëw fii sa xol dina sedd dekkal na réew mi réew mi deewoon na waaye dekkal na réew mi dekkal na tund bi yëpp ah, ndax wax dëgg yàlla li mu def yéen ko ci boppam. dama ne noonu noo noonu noonu waa Kër Baale noo ci jiitu waaye Ibrahima mi itam wax dëgg yàlla tubaarikal noo ko ñaanal moom itam ndax taag bu bàyyi ab lu seq woon rek ma nga ca ma nga ca kaw. ndax ñun waa Kër Baale yi ko juróom-ñett fukki junne lañ jox fee ca réew ma sama loxo la ko teg kon xam nga ne lii sëñ Ibrahima fàttewunu waaye nag def na ko fa ko bàyyam doon def fa mu ko def de yàqu ko waaye ñun itam fasante nañu ma kóllëre yoo ko xam ne fii. bu soobee yàlla ba kere mu nu ñoppee gis lépp lu mu nekk rek noo nga ca biir jébbal na suñu tey ba suba lépp lu ne ci moom rek nañu ko wax bu soobee yàlla moom baat ak tontu lay doon baat ak tontu lay doon ndax boo ko seetee diwutuma xale ndax sama juróom-ñett fukki at manqué wut tey laa soog a jàpp ngóobaan di góob samay tool góobu ma leen dama la ko dama woote àjjuma waaye fii rek laa mos a commencé tey fii laa mos a commencé dagg dugub tey Baye Abdou rek jëmam rek ak doon ñëw fii desangu sangu ndax fii ku fi ñëw da sangu si kon nag ku fi ñëw a ah, tànk bi nga yëq seq ba ñëw ko yàlla na ko yàlla fay yàlla na yàlla def njéggal ci moom wax dëgg yàlla nun daal am na ay taalu bi rek lañu noo ngi ci seen gannaaw tey ba suba noo ngi ci ginnaaw Baye Assane noo ngi ci ginnaaw Ibrahima noo ngi ci ginnaaw Momadou noo ngi ci ginnaaw wàccee kenn ni nun daal wax dëgg yàlla tubaarikàlla suñu xool fees na yaa ba Abdou daal yàlla na yàlla gën a yokk leeram ci barsàq. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp it tey bii dama cee kontaan ndax li am solo mooy li sunu maam yi daan fi nu awan awale nu fi nu di ko sant ba jon sunu jonni tey jii yàlla boole noo Ibrahima sëñ Ibrahima Seck ah woote tool bii tey. moo waral lii tey ñu ñëw ci nag ah, di ñaanal sëñ ib sëñ bi yàlla na taxawaayam yàgg yàlla na fanam gudd ah lii di ko ñaanal yàlla na yàgg ndax euh, yoon wi tey dama cee sawar tey ndax ni ñu mobilisé tey boole ko tund wi yëpp waa ñànge Dakar waa gàdd waa bulfa waa ñëpp rek ba Kër Maas Kër ma Madiop Njaaraw kenn bàyyiwul kenn ni ñu mobilisé woo ñëw nii tey jii wax dëgg yàlla dama cee kontaan di sant nag rek sëñ bi nag di sant rek sëñ bi ndax tey jii ni nu ko wootee ak ni nu mobilisé woo ñëw rek dafa am solo trop trop trop trop trop trop wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant bu baax di ñaanal sëñ bi nag lii yàlla na yàgg ndax ñaq wii nu koy ñaqal noonu dañ koy dañ koy baaxoo di ko nu mu ci sëñ bi ndax wax dëgg yàlla nun dañ ciy kontaan jërëjëf ah ñaanga Dakar laa dëkk Mor Mané waaw ah sama rakk nag moo jëwriñu sëñ bi Mbaye Mané sëñ bi xam na ko wasalaam maa ngi nuyu ñëpp nag di leen gërëm. ba nga bàyyi mbooloo mi topp ci sa gannaaw. ginnaaw. ak la ca aju lépp. ak la ca aju lépp. maa ngi yëkkati nuyoo. maa ngi yëkkati ay nuyoo. maa ngi yëkkati ay nuyoo. yu sori ci xolam. yu sori ci ay xolam. ak i ñaan. ak i ñaan. di ko teg ci sa loxo. di ko teg ci sa loxo. kuma ak wér tey jii kuma ak wér tey jii. ba ma mën koo jotale noonu. ba man koo jotale noonu yi. foogoon naa sax du ma mën a yëkkati samay kàddu. mais foogoon naa sax moom it du mën a yëkkati ay kàddu. ma yooyu rek. waaye bu ci njooyu nuyoo yooyu rek. ma ko yeggaleel ci ñi mu leneen li ci desit mooy kilifa yiñ ko bokk ko bokkoon ñu ngi nii toog sëriñ Seexu Amadou ngi nii toog sëriñ Seexu Amadou mi ngi nii toog mën naa yëkkati ay kaddu mën naa yëkkati ay kaddu yóbbaale ñu géew ñun ñëpp yóbbaale ñu géew ñun ñëpp ndax moo ko daan def ci kanamu sëriñ bi ndax moo ko daan def ci kanamu sëriñ bi Serigne Modou Fall ñaaxaa ngi nii toog. Serigne Modou Fall ñaaxa mi ngi nii toog. di sunu mag di sunu xarit. di sunu mag di sunu xarit. def tey jii lu am solo. def tey jii lu am solo. ndax dëkk bii. ndax nee dëkk bii. mel nañu ab dëkkam la. mel nañu ab dëkkam la. ndax yaakaar naa ni bu fi juddoowul it. ndax yaakaar naa bu fi juddoowul it. def na fi at yu bari. def na fi at yu bari. tey jii mu ñëw si sëriñ bi. jii mu ñëw wuy si sëriñ bi. waaye bi mu ñëwee toogul. waaye nag bi mu ñëwee toogul nag. dafa ànd ak mbooloo mi yëpp. dafa ànd ak mbooloo mi yëpp. kon sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm. sëriñ koy sant bi dafa wax ni. sëriñ bi dafa wax ni. liggéeyu tey bii. liggéeyu tey bii. ni mu sedde xolam. ni mu sedde xolam. bëggul woon benn kàddu tege ci. bëggul woon genn kàddu tegu ci. lu may ngeen tàllal rek. lu ngeen tàllal rek. mu ñaan. mu ñaan. ñu dem. ñu dem. te xam ne aajo ji dana faju. ndax xam ne aajo ndax xol bu seddee dëgg dëgg dëgg. ndax seddee dëgg dëgg ak xeeboo ñaan. xeeboo rek nga ñaan. li nga war a wax lépp. li nga war a wax lépp. nga soppi ko ak ñaan. nga soppi ko ak ñaan. loolu moo tax kàddu yi. nee na dox kàddu yi. du gudd. du gudd. ndax wax dëgg yàlla. ndax nee wax dëgg yàlla. ñun la yabaloon ci yéen. ñu ñëw. ngeen ñu ñëw ñoom. indi kàddoom. indi kàddoom. te fu ñu fi yegg rek. te fu ñu fi yegg rek. teeru ngeen ñu. teeru ngeen ñu. dégluñu. dégluñu. li doonoon suñu ittee. li doonoon suñu ittee. ngeen téye ko. ngeen téye ko. te la ngeen. dox te war a dox. bi ngeen xëysee tey jii. ba ngeen yaakaar naa ni li ngeen fi jëf. yaakaar naa ni jëf ji ngeen fi gis nañ ko. ñëpp. teg nañ ci seen bët. kon. sant yàlla rek. sant yàlla rek. moom moo ñu war tey jii. moo ñu war tey jii. bu amoon kàdd goo xam ni. amoon kàddu goo xam moom bu amoon kàddu goo xam ni. moom bu amoon kàddu goo xam ni. jërëjëf dina leen ko wax. dina leen ko wax. nee na bu la nit defal nee ko jazaakumullahu xayran. nee ko jazaakumullahu xayran. baat bu gàtt la. waaye bu desal moom moo lay desal. lu desalatu. leen nee liggéeyu tey bii liggéeyu liggéey bu nekk am na fi na fi waaye bu pas-pasu tey bii waaye pas dëgg dëgg dëgg dëgg nag dañ ko koo yéene. da ngeen koo xam ni. yéene xam ni. loolu moo tax sedd guy. moo ndax kenn ku ne xam na ni. kenn ku xam na ni. nekk fii ba 4 ba 4 heures. ba bëgg jot. ba 5 heures loolu bu dul woon yéene. ay yéene. du leen fi fekk. heure bii wàcc jotee. joxe na ndigal. ñu ñëw wàcce leen. mbooloo mee xataraayu. waaye ñu dem mukk. ñu naan des na fa. ñu naan waaw. ñu naan waaw. déedéet loolu daal loolu loolu daal. moo tax. moo tax ah moom mu bàyyee leen. moom mu bàyyee leen. seen yéene jooju. seen yéene mottali ko. ngeen ko yeggalee. ko yeggalee. noonu seen aajo ci barke yonent bi barke yonent bi kilifa yi nga xam ni kilifa yi nga xam ni ñi ngi àndak mbooloo mi ñi ngi ànd mbooloo mi tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu mat na sëkk mat na sëkk mënuñu leen a ñàkk a tudd mënuñu leen a ñàkk tudd sëriñ ngi nii sëriñ cawaare na fee ñëw ci suba teel na fee ñëw tey suba ànd ak waa cawaare te kenn ku ne xam na ne mag la kilifa la ne mag la kilifa la waaye dafa ñëw ànd ak ñun waaye ànd ak sëriñ bi ànd ak sëriñ bi ba ajoom faju ba aajoom faju ñu ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Aliou Jonn sëriñ Aliou Jonn ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay sant bu baax alaaji Papa Diagne Samba Anne. ñu ngi lay sant bu baax baax. di gërëm sëriñ eh, kii Diallo. sëriñ nu mu tuddati góor gi Diallo. Eh. Baye Ibou ñu ngi koy sant bu baax. waaye ji bi jàll ñu ngi koy sant bu baax. kenn ku ne xam na ne wérul. kenn ku ne xam na ne. nekk fële ca Italie. nekk fële ca Italie. fa tabaarakallaahu. fa ñëw na yendu fii. ñëw na yendu fii. léegi. léegi la jóge ci tool yi. la jóge ci tool yi. moom it ñu koy sant bu baax. moom it ñu ngi koy bu baax. ñu ngi koy gërëm. ñu ngi koy gërëm. ñu ngi koy ñaanal yàlla. ñu ngi koy ñaanal yàlla. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. suñu bokki ngomeen yi. suñu bokki ngomeen yi. bàyyiwuñ kenn. bàyyiwuñ kenn. waa aaneen yi. waa aaneen yi. waa kër Mamour. waa kër Mamour. sëñ Mbooy Guèye ngi nii. sëñ Mbooy Guèye ngi nii. Mbengeen waa Mbengeen sëñ moor Mbeng sëñ Mor Mbeng ak sëñ Seega ak sëñ Seega waa kër Wadd waa kër Wadd sëriñ eh, kii Jóoba nga ne la toog mm. sëriñ Mor Jóoba nga ne la sëriñ Mor Jóoba ak ak ak Càmbeen ñoom Mansour ñoom Mansour doomu Baye Nguuda Baye doomu Baye Nguuda ñëw na ñëw na ak ñu war a àndal ak ñu war a àndal ñëpp fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu waa kër Sonko waa kër Sonko Ousseynou Tine. kër Ousseynou moom it dama faa woon a yegg. moom it dama faa jotul woon a yegg. yabale yabale fa woon. yabale fa woon. ndaw la yeggu fa. ndaw la yeggu fa. waaye da koo dégg ci téléphone. waaye da koo dégg ci téléphone rek. daal di bàyyi lim doon def daal di bàyyi lim fa tabaarakallaahu fa waaw waaw fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu ñoom it waa ñaange daqaar yi waa ñaange daqaar yi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant leen di gërëm ñëw nañ ñëwin woo xam ni ñëw nañ ñëwin woo xam ni mooy seenu ñëwin mooy seenu ñëwin te loolu mooy la war a am te loolu mooy la war a am ndax ñoom ñoo moom kër gii ndax ñoom kër gi ndax loolu demb la woon ndax loolu démb la woon tey jii soog a ñëw tey soog a ñëw cant gee ngërëm li nag cant gee ngërëm li nag jiital nañ ci waa gàdd jiital nañ ci waa gàdd xam naa dinañ yëkkati seen kàddu xam naa ñoom dinañ yëkkati seen kàddu nañ daan def démb nañ daan def démb ak démb. noonu la ñu defaat rek. noonu la ñu defaat rek. kenn desul. kenn desul. maam Amary Diagne ngi. maam Amary Diagne ngi nii. ànd ak sëñ Biram. ànd ak sëñ Biram. sëñ Maxtaar Ñing. Maxtaar Ñing. sëñ mag la. mag ni mag la. yëgul ni andaale wërsëgam. andaale wërsëgam. andaale teraangam. andaale teraangam. ju bëri la bi mu ñëw tàngal ju bëri la indaale te taxul mu toog ci kër gi taxul mu toog ci kër gi waa mandangri waa mandangri ñoom ñëpp ñëw nañ ñoom ñëpp ñëw nañu sëñ Maodo Mar sëñ Maodo Mar ak ñamu àndal ak ñamu àndal ñëw an teewal sëñ Naama ñëwoon ah, teewal sëñ Naama fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla sëriñ Ibra Faye sëriñ Ibra Faye buñ ko tuddee buñ ko tuddee tudd nañ waa kër Aliou Jonn tudd nañ waa kër Aliou Jonn ndax ñoom ñooy ñun ndax ñoom ñooy ñun ñun ay ñoom ñun ñi ñooy ñoom ñoo dëkk ñoo dëkk te benn lañu te benn lañu sëñ Baara Faye sëñ Baara Faye ma nga nele moom it ma nga nele moom itam jógee Kër Latir jógee Kër Latir fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu suñu baay suñu baay baay Ibou Dieng baay Ibou Baye Ibou Dieng Baye Ibou Dieng ci fajar bi muy taw fajar bi muy taw fekk na ko mu agsi fii nii fekk na ànd ak man agsi fii te mag la te mag la mënoon na ni rek mënoon na ni rek naa yónnee samay ñaan naa yónnee samay ñaan wala ma yónnee wala ma yónnee sama taraanga sama taraanga waaye daa gàddu waaye daa gàddu eh, ab parisolam ab parisolam ñëw teew si ñëw teew fii sëñ Samba Ba sëñ Samba Ba ñëw na ñëw na jóge kër ma jóob Samb jóge kër ma jóob Samb ànd mbooloo mu bari ànd mu bari fa tabaarakallaahu fa eh, ñu ñoom ñëpp waa gollam ñoom ñëpp waa gollam yi nag waa gollam yi ñu leen di cant ñaari cant ñaari sant ndax cant gu jëkk gi ndax cant gu jëkk gi mooy taxawaay bi ci gàmm gi mooy taxawaay ci gàmm gi daa rafet lool daa rafet lool ñaari fan lañ ci teg ñaari fan lañ ci teg ñu dellu ñu dellu ñëwaat ñëwaat taxaw taxawaay bii taxaw taxawaay bii ñoo nekkoon fële ca waañ ñoo nekkoon ca waañ wa ñu leen di sant ñu ngi leen di sant kàddug sëriñ bi kàddug sëriñ bi di leen ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla taxawu leen waa xay waa xay ñëw nañu ñëw nañu sama nijaay alaaji xule sama nijaay Ndiaye Ibou Khoule. Ndiaye Ibou Khoule. ak eh, imam Adama Souare. imam Adama Souare. ak ñooñu ko seqal. ak ñooñu ko seqal. ñoom ñëpp a ngi nii ñoom ñëpp a ngi nii toog. ñu leen di sant. ñu leen di sant. ñu ngi leen di gërëm. ñu leen di gërëm. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. ñu ngi di yàlla. cooti. nee na fii di cooti. barabu yàlla la boo xam ni. barabu yàlla la boo xam ni. Serigne Ibrahima mii fi toog tey jii. Ibrahima mii fi toog mii tey jii. toogal fi Baye Abdourahim. toogal Baye Serigne Abdourahim Seck. Baye Abdou ma ngeen fi daan fekk démb. Baye Serigne Abdourahim Seck mu ngi daan fekk démb. moom rek ngeen fi fekk tey jii moom rek ngeen fekk tey jii. ndax arab dafa wax ni. arab daa wax ni. alwaladu. alwaladu. sirru abihi. sirru abihi. doom. doom mooy sekkere baay. mooy sekkere baay. te wax dëgg yàlla. te wax dëgg yàlla. tool bii. tool bii. kenn ku nekk xam na ni. kenn ku nekk xam na ni. Baye Abdourahim. Baye Serigne Abdourahim. bi mu ci daan sonn. bi mu ci daan sonn. du jëmmi boppam moo taxoon. du jëmmi bopp moo taxoon de. mooy ndimbal. mooy ndimbal. jaami yàlla yi nga jaami xam ni. dañ koo soxla. dañ koo soxla. bu bayee ba pare. su bayee ba pare. di yëkkati li muy bay. li muy bay. di leen ko jox di leen ko jox. ak donga yi nekk fii. ak donga yi nekk fi mu di leen ko dundale. mu di leen ko dundale. yaakaar naa ne ku dëkk Canaba. yaakaar naa ku dëkk Canaba. xam nga saako dugubu. xam nga saako dugubu. Baye Abdourahim Baye Sëñ Abdourahim Seck. bu nit génnee àdduna bu nit génnee àdduna. saako dugubam. saako dugubam. moom moo fay jëkk. moo fay jëkk. te saako dugub boobu. saako dugub boobu. yéen yéen a a ko bay. yéen a ko góob. yéen a ko góob. kon tuyaaba ju ca am kon tuyaaba jëm ca rek yéen kenn du leen ci ëpp loolu bi mu fi jógee te loolu bi mu fi jógee ñi xamul dañoo foogoon ni loola dakk na dañoo foogoon loola dakk na de ñu ne cëy ñu ne cëy Baye Abdourahim Seck Baye Abdourahim Seck waaye sëñ Ibrahima waaye sëñ Ibrahima Seck mi bi mu ñëwee la baayam doon def la baayam doon def ci teraanga jooju ci teraanga jooju bu doon benn bu doon benn da koo yokk muy fukk da koo yokk muy fukk loolu nag loolu nag mooy jom mooy jom mooy pas-pas mooy pas-pas loolu mooy mooy mooy wéyal loolu mooy wéyal liggéeyub sa waajur liggéeyub sa waajur yàlla na ko ci yàlla saxal yàlla na ko ci yàlla saxal ci barke yonent bi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa ndax taxawaay la boo xam ne nga ne taxawaay la boo xam ni wërta naax saay mukk wërta naax saay mukk ku xam Baye Abdourahim xam Baye Sëñ Abdourahim Seck ni meloon ci jaami yàlla ni meloon yàlla daana ko waxi doomam daana ko sama priorité de diina ji sama priorité man lu ma am man lu ma am diina ji laay diina ji laay sédd soog leen a sédd soog leen a sédd te loolu ñun ñëpp ko kon ku ko wuutu kon ku ko wuutu dox doxin woowu dox doxin woowu warees na laa ñaanal warees na laa ñaanal yàlla tool bi tool bi li ma wóor li ma wóor te su ma ko waatee su ko waatee du ma ko kafaara du ma ko mooy ñun ak jaami yàlla yëpp mooy ñun ak jaami yàlla yëpp ñoo koy ñoo koy bokk ñoo koy bokkaat rek ci kattanu yàlla ci kattanu fay yow doomu aadama bi yow doomu aadama bi du la fay du la fay ni ngay jëfee ni ngay jëfee nam toll moom nam toll moom suñu borom noonu lay fay noonu la lay fayee kenn ku nekk ci yéen kenn ku nekk ci yéen dagg nga aw gub dagg nga aw gub yàlla xam gub wa yàlla xam gub wa na mu toll na mu toll gub bu nekk gub bu nekk pepp ya ca nekk pepp ya ca nekk yàlla xam nu mu toll yàlla xam bu ci nekk pepp bu ñu nekk bu yàlla dee fay bu yàlla dee fay par pepp lay jël par pepp lay jël di la ci fay par fukk di la ci fay xam nu mu toll loo ko xam nu yàlla rek yàlla rek ko xam moo tax liggéey moo tax liggéey ñaanal yàlla mu nangu ko ñaan yàlla mu nangu ko bu ko yàlla nangoo bu yàlla nangoo sa adduna day jag sa adduna day jag sa àllaaxira jag sa jag nag sëriñ bi nag mi ngi leen di ñaanal yàlla mi ngi leen di ngeen jéemati ngeen tële mu yàlla ngi amee bëtub yërmande yàlla mi ngi amee xam ni kum ko xool kum sa adduna jag na sa adduna jag na sa àllaaxira sa àllaaxira dana jag yàlla leen ko xool yàlla leen ko xool yàllaa ngi amee loxol yërmande yàlla nga loxol yërmande boo xam ni kum ko teg kum ko teg di nga jagle ci àdduna di nga jagle ci àdduna di nga jagle àllaaxira di nga jagle ci àllaaxira yal leen ko yàlla teg yal na yàlla teg leen ko ci barke yonent barke yonent bi amati soxla amati ba mu ni ci sa xol rek ba mu toq sa ngaa sol sa dàll bala ngaa sol sa dàll di di ca doxi di ca na nga fekk yàlla yal na nga fekk yàlla yal na la fa jiitu yal na la fa jiitu fajal la soxla boo ñëwee ba boo ñëwee ngay fekk lépp da ngay fekk lépp sotti sotti ci barke yonent barke yonent bi ñaan yooyu ñaan yooyu xolam la ko tibbe xolam la ko tibbe ak xolum njaboot ak xolum gi leneen li ci topp itam ne leneen li topp itam ñu ngi sant njabootu kër gi ñu ngi sant njabootu kër gi muy ak njabootam muy ak njabootam di ay rakkam di ay rakkam te ki ci jiitu muy sëñ Alpha te ki ci jiitu muy sëñ Alpha sëñ Ousseynou sëñ Ousseynou ak sëñ Babacar ak sëñ Babacar ak ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu ak ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu fi ñoom it ñu ngi leen di sant ñoom it sëñ baa ngi leen di sant ndax wettali nañ ko ndax wettali nañ sëriñ bi bàyyi wuñ ko mu wet bàyyi ko mu wet jamono bu ne bu nekk saa bu gessoo saa bu gessoo ci lépp lu mu sumb lépp lu mu sumb gis leen gis leen ci gannaawam ci gannaawam loolu loolu day dalal xelu kilifa xelu kilifa yàlla na yàgg yàlla na yàgg yàlla nga yàgg a gestu yàlla nga yàgg gestu gis sa njaboot gis sa njaboot loo sumb rek loo sumb rek ñu ànd ci ak ñu ànd ci ak yow Baye Issa Diop mii Baye Issa Diop mii ñu ngi koy sant di ko gërëm gërëm suñu doomu baay la suñu baay la suñu xarit la suñu xarit la suñu lépp la suñu lépp la di doomu baay sëñ Maxtaar Seck doom doomu baay sëñ Maxtaar Seck ak soxna Ana Seck ak soxna Ana kenn ku nekk xam na ni kenn ku xam na ni am na fii cër am na fii cër sànq rek la ma woo sànq la ma ma maa ngi ci sama maam di ko ziyaar ni ma maa ngi sama maam di ko ziyaar de kon ñëw gi nga ñëw sa kon maam sa dëkkum maam ndax ca garab gële ndax ca garab la sa baay nekkoon fa la nekkoon moo yore woon daara ji ji bëri na ñoo xam ni bëri na ñoo xam ni ay xam-xam lañu ay boroomi xam-xam lañu ci wàllu fiq ci wàllu fiq garab gële ca garab gële fa la fa la sa sa baay jàngale fa la jàngale kon yow am nga fi cër am nga fi kon ñëw gi nga ñëw kon ñëw gi nga ñëw fekk si liggéey bi fekk si liggéey bi sëriñ bi sant na la sëriñ gërëm na la gërëm na la mi ngi lay ñaanal yàlla mi ngi lay ñaanal yàlla sëriñ Seexu sëriñ Seexu maa ngi guddal maa ngi guddal nga àggaleel nu nga àggaleel ñu kàddu cant yi kàddu cant yi ak ngërëm li ak ngërëm yi balaa sëriñ be jël kàddu balaa sëriñ bee jël kàddu foogu ma ne woon sax dinaa mën a wax te foogu ma sax dinaa mën a wax ndax fan yëpp ndax fan yëpp damaa xaw a xaw a girib damaa xaw a waaye àllarba dëgg la waaye àllarba dëgg la yàlla xam na ne yëgatuma dara yàlla xam ne bi lay yëgatuma dara ci suba bi ma xëyee suba bi ma xëyee diju sax mënuma ko diju sax ko waaye ndakate àllarba waaye da nga àllarba moom li ci nit moo ci gën salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw man waxuma damay compléter rek waaw. waaw waaw ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp. moo tax ma ne fàttali ñu woon moom. waaw loolu mbokk mi moom moo ko waa Bulfa. waa waa Bulfa. waa Bulfa. waa Guyaar. ak waa Taala Thiaw. Taala Thiaw. dafa def lu rëy a rëy. daa a rëy. ku ne xam ne taalibe Sëñ Ibrahima la. ku ne xam ne taalibe Sëñ Ibrahima mii la. waaye dafa mobiliser waa Guyaar yëpp. waaye daa mobiliser waa Guyaar yëpp. waa Bulfa. waa Bulfa. maag Mor Gueye ak euh, Bakk ma la ñoo fa àndoon barki démb. maag Mor Gueye ak Bakk ma ñoo fa ànd barki démb. ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax. xam nga xel. xam nga xel. mënul matale. mënut a matale rawatina loo bindul. rawatina loo bindul. moo tax ma ni rek. moo tax ma ni rek. ku ñu tuddul rek. ku ñu tuddul rek. nañ ma ko fàttali. nañ ma ko fàttali. ndax kenn ku ne. ndax kenn ku ci nekk. la tax nga jóg la tax nga jóg. walaay yëg nañ ko walaay yëg nañ ko suñu xol. leen di nuyu di leen ziare bu baax di ñaan yàlla subhanahu wa taala yokk seen jàmm macha allah yokk seen wér yokk seen taraanga yokk seen wërsëg kàddu yi ma yëkkati kàddu yu gàtt lay doon wax ji dafa mat sëkk sëñ Mouhamed Seck wax na ko ci anam gam ko daan waxe waaye li ma ciy dolli wala yonant bi xas wax wala nit ku yàlla rus xas wax wax jooju ku yàlla namm ci aw yiw danga koy dégg jëfee ko suñu boroom nag moo wax ni wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura suma yujzaahu l jaza al awfa te wa anna ila rabbikal muntaha yàlla buy wax dafa fonk doomu aadama moo tax wax ji yenn saa yi damay wax ni da koy wutal miir bu ko wër ba wax ji du saawaan ndax kii dégg la bëgg wax ji dugg ci noppam ñépp xam na ni wa an laysa lil insaan illa ma saa aw waxin la ci arab aw waxin la ci alquranul karim suñu borom nee na doomu aadama lépp lu mu liggéey ci lu baax na ko wóor ni versé ko ko dul ci kontam te lu mu yàgg-yàgg wa an na san yahu sawfa yura jëfam jooju mu jëf lu yàgg-yàgg dana ko gis te fam koy gisee day fekk jëf weesu bu alxuraan waxee saw fa ñëpp xam na ni jubluwu ci liggéey tey gis résultat bi tey ndax saw fa ak sa ñëpp xam na ni bu duggee ci grammaire ci grammaire arabe mooy lu mooy lu sori képp ku am xel nag àddina bi jaaruwaay dong la ku ci nekk tey mën ngaa lim ci say loxo ba lim say maamaat te ñooñ ku ci nekk amaana ñoo xamante ni dund fi sax téeméeri at waaye tey anañu kon fii kun ni jaaruwaay la boo dee boroom xel da ko gëm suñu boroom nag moo jaral lebal ndax lu yàgg-yàgg ci moom la mujj waa na ilaa rabbikal muntaha waaye wax jooju suñu maam boroom tuubaa dañu ko firil ni wa zur xiyaaral ulama wa saalihin wax dimhum lillahi jalla kulla fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fi ma qad nuqil nit ku baax dangay nangoo dagg sa yitte ngir seeti sab nawle bu baax nit ku baax da ngay nangoo dagg sa yitte muñ ko ngir seeti nit ku yàlla gërëm te boo demee loo man ci liggéeyal ko wala nga nga dindi ci sa poos jox nga def ko rek te yàlla tax dama ni fii ku fi ñëw sa bu mënee jëll sëñ Ibrahima mi na ko jëll dem ci ba Abdourahim sa bët bu mënee jëlli ba Abdourahim na ko jëlli dem ci maam Omar Talla ma ni bu ko mënee jëll na ko jëlli dem ci maam Amari ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga doomu aadama munta jox boppam bay xañ kenn yooyu doon koo war a xam ndax ñu noppalu ku def sa bopp nga defal nitug yàlla nag ku ko defal yàlla dana la fay muy dund ak muy faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ni sama dund ak sama faatu macha allah bu mu ci mën doon rek aw yiw ci yéen te yonent bi lépp lu ko yàlla may wala yonent yi lépp lu leen yàlla may yàlla may na ko nit ñu baax ñi cooti gi ki ko samp jaamukaayu yàlla ak liggéey moo taxoon mu samp ko sekkare ba fi defoon nag du masa deñ ndax waxkat yi dañ ni albirru laa yablaa wa zanbu laa kamaata tadiinu daanu wat da yaanu laa yamutu gis nga lu baax du masa ràpp mukk fi mu toll nii mag ñi fii aw ñi awoon cooti ba tey seeni doom macha allah wala seeni sët teew seeni sët yooyu bu ñu déggee ñuy nettali seen taarixu maam ak seeni taarixu baay fierté lay doon ci ñoom sëñ Modou junj na ko léegi ci ciy wax waaye kenn du def loo xamante ni jaaduwul te lu jaaduwul li ci jiitu mooy fecc kóllëre nit bu amul kóllëre digganteem ak boromam dootu ko am ci kenn dootu ko am ci waajuram dootu ko am ci ay maamam waaye nan bàyyi xel ni suñu borom subhaanahu wa taala du nekkul kuy faatu mukk allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum yàlla dafay dund dund gooxe amul commencement amul yamuwaay waaye noonu mu taxawee ci boppam noonu lay taxawoo nit koo xamante ni ñaqal nga sa mbokkum jullit li ngeen di def fii nii du nekk luy nen mukk munta nekk mënul nekk dama ni mënul nekk kon ak mbaax nag ak mbaax dama ni jublu penk julli baax na de waaye yàlla ba muy wax baax dafa tëb loolu laysal birru an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghribi waaye ak mbaax fi nga koy xamee dëgg mooy joxe loo bëgg fii ay ndaw rek a fi nekk ku ci nekk yàlla dénk na la wér ak doole joo xamante ni tey mënoon ngaa xëy fenn ñu fay ñu fay la waaye fay gi ngay jëlee fii yàlla xam na ni bu soobee yàlla de kenn du ko tëkkale ak fay googee waaye li ko waral nga def ko mooy wa aatal maala ala hubbihi alal lan miin a joxe waaye du ñëpp la yàlla jox alal waaye ku yàlla jox doole mooy sa alal ku yàlla jox xel mu rafet mooy sa alal ku yàlla jox xam-xam nga koy jàngale mooy sa alal wa aatal maala ala hubbihi bi ci gën a neex nag mooy wal muufuuna bi ahdihim isa ahadu kóllëre dan koy matale ñëpp xam nañ ni am na ñoo xam yénente woon ak sëñ Ibrahima mii sax bu baax fii bëri na fi ñoo xamante ni bu nuyoo sëñ Ibrahima mii da leen di laaj seen sant waaye sëñ Ibrahima taxul ñuy def yàllaa tax ñuy def Baay Abdourahima tax ñuy def mag ñu baax ñi moo ñoo ñoo tax ñuy def yal na yàlla fay leen yal na yàlla dimbali leen cooti ji incha allahu amul lenn lenn lu fi waay di ñaq te billaahi du nekk loo xamante ni ëllëg yowmal xiyaam buñ la koy fay da ngay ngéeju ni su ma yëgoon def lu ëpp lii kon dañuy sant ñëpp. di gërëm ñépp guddi na te sëñ Modou nuyoo na façon nuyoon boo xam man mii mënuma ko kon damay doyloo ay nuyoom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. woon ni ndax bëggoon nga mujjee su ko defee su ma yàqee nga defar. xol bu fees laay waxe fi mu ne. ginnaaw bi ñu sant yàlla junni julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, loolu nuyu ñi fi ñëpp. Eh, di yëkkati kàddu nag ci tur Ilimaan Jonn mi suñu borom kër lu ko waral Modou Jonn ak Baye Abdourahim te mooy mooy xalifab sëñ Modou Jonn tey ci kër Aliou Jonn eh, muy ay kàddu yu cant eh, yoo xam ni daa baw ci kullu séréer lu wér cuuti ñu war ko sant njobootu Baye Abdourahim te kan ca bopp ba di sëñ Ibrahima sek Eh, mag ñi daa am fi defoon muy ak mbokk rafetal ko sàmm ko bam taaru Ibrahima bi mu ñëwee nag da koo suuxat la mag ñi bàyyi woon Ibrahima da koo yokk te yokkin wa nag laa bëgg a leeral ndax xam nañ li fi mag ñi defoon ba noppi waaye yokk gi nag laa bëgg a wax nit ñi ñu xam ko Euh, séeréer dañu ne nun day xamuñu ni ñuy def Ibrahima lu tax na leen Ibrahima defa tax waaw ndax Ibrahima sëñ Cheikh wax nga léegi sàmm kóllëre ka mën a sàmm kóllëre ak suwaatuk bokk ak fonk doonu baayam nun ñi xam nañ ci dara ndax noo dëkk ak ñoom yéen léeg-léeg du ko gis waaye nun toujours noo gis Ibrahima di gis jobootu baay Abdourahim ñuy jàppi gox bi tund yi lii askanu séeréer ak wolof amaana yéen ump na leen waaye nun leer na nu ñoo ngi koy ñaanal sa doono baay bi yàlla nañ ci yàgg kontaan nan bu baax yàlla ba yàlla nag subhaanahu li waxoon loolu moo tax rek moo ñu obligé forcé ñu wax ndax wa ama bi ni'mati rabbika fadis man lam yaskuri naas la yaskurullah foofu la ñuy waxe te Ibrahima ak a dégg addis man kaana yu'min billahi wal yawmil axir fala yu si moom de loruñu benn yoon te teral nañu tamit teral ba mooy lan foofu rek laay tëje ndax li ñuy naa junj na borom xel ci gàmmu gi bi mu desee ñaari fan la yónnee ilimaan ne ko yéen de seen ndawalu gàmmu maa leen ko ameel su bés ba jotee ñëw leen jël seen ndawal yëkk wu rëy xam ne soo ko yóbbu woon marché cinq cent mille du manqué wala day teg kon mel ni lafi fi bàyyam bàyyi woon yokk na ko kon mel ni doonoo ga garab yañ fi jëmbatoon mu ngi koy suuxat loolu moo taxoon ma ne il faut ma wax ko mbooloo mi ñu xam ko donte moom sax ku woo sax nag ki ko wax su sañoon moom kenn du ko dégg ndax yàllaa tax muy def kon jasaakumullah Ibrahim sant nañ la bu baax ndax du du obligatoire yaa bëgg rafetal fonk say dëkkandoo fonk say doonoy waajur waaye loolu lépp ñu koy sante mag ñi waaw mag ñi sëñ Mor Joon Baay Abdourahim Seck ndax li lépp am suñu diggante diggante séréer yi ak waa Kër Baay Abdourahim ñaar ñooñu ñoo ko sabab kon yàlla na yàlla yokk seen leer kaddu gàtt yooyu daal laa ne woon manta ñàkk il faut ma wax ko mbooloo mépp dégg ko xam li fi Ibrahima nekke Ibrahima yaatal ak bokk ak boole ñëpp ñuy benn loolu la fi nekke kon yàlla na fi yàgg sekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah déglooti leen ma maa ngi woy Seex Canaba ma gën a leeral turu maam Seex Canaba Muhammadu mooy turu maam Seex Canaba aminata di yaayi maam Cheikh Thiénaba te Abdullahi baayu maam Cheikh Thiénaba tagi Cheikh Cheikh Thiénaba ci ñeenti weer yu tegal ñaar ci Thiénaba ci la tabax juma ju mag ci Thiénaba ci ñeenti weer yu tegal ñaar ci Thiénaba ci la tabax juma ju mag ci Thiénaba ku def fuuta juma xanaa Cheikh Thiénaba waa wuro Madio nga naan Cheikh Thiénaba waa wuro Madio ka gëm Cheikh ba looloo waral ba ñuy gàmmoo ba ku dem Gusaas gor fa sanc Cenaba samp fa ay daara xanaa seex Cenaba te daara cooti siiw na ndax Cenaba cooti la yàlla nangu la seex Cenaba bay seex jaan mi taalibe seex Cenaba mat na ci seede xam na maam cena seex Cenaba cooti la jànge alxuraan ak Cenaba ba yàlla bu bi def ko muy sëñ Cenaba na yàlla buur yàggal ko mooy Cheikh Thiénaba ku ne ami yàlla na gisee Cheikh Thiénaba Ibrahima di taaw maam Cheikh Thiénaba nekk na fii lu yàgg doon Cheikh Thiénaba maa sopp Ibrahima moom Cheikh Thiénaba moo doonu bàyyam góor gu ma Cheikh Thiénaba Ibrahima moo doonu maam Cheikh Thiénaba njaboot gi jooyuñ gannaaw Cheikh Thiénaba saytu na daareeg njaboot keeg Thiénaba na yàlla dolli leeram ak seex Cheikh Thiénaba Baye Mamadou borom Kajoor ca Thiénaba moo doon wuutu moo wuutu Ibrahima fii ci Cenaba kooko di bàyyi bàyyi ndikaan moom ba tax na ba ñëpp gën a xam waa cene ba na yàlla def mu yàgg fii ci Cenaba sigal na diine te sagal waa ba ndikaan mu yaay ci roo bégal waa Cenaba doon na maamam góor gu ma seex ba moo tax sëriñ Abdourahim moom Thiénaba doon na baayam góor gu mag Seex Thiénaba moo tax sëriñ Abdourahim moom Thiénaba doon na baayam góor gu mag Seex Thiénaba na yàlla def mu yàgg fii ci Thiénaba te yàgg woote cooti moog waa Thiénaba moo tax sëriñ Abdourahim moom Thiénaba doon na baayam góor gu mag Seex Thiénaba na yàlla def mu yàgg fii ci Thiénaba. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp. di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ di ko ñaanal ñeenti yonti ñeenti ñaani yonti yàlla Moussa ga ak ñeenti ya ko yàlla tegal yonti yàlla Moussa dafa noonu yàlla yàlla nga ma defal fan wu gudd mu ni ko waaw Moussa mu ni ko yàlla nga ma defal kattan mu ni ko waaw Moussa mu ni ko yàlla nga ma defal xam-xam mu ni ko waaw muusaa mu ni ko yàlla nga ma defal nguur gudd jeex mu ni ko waaw Moussa Moussa ñeenti ñi boo ko ñaanee te tegaluma la ci ñeent. ñeent yi nga jëkk ñaan du dara doo ci du am njariñ ñeent ban la ba mu ñaanee fan wu gudd yàlla dana ko dinaa la ci tegal wér ñoo ngi koy ñaanal sëñ Ibrahima yàlla nga am fan wu gudd ak wér ñoo ko mu dee ko maa ngi lay ñaan kattan gu ma mën a liggéeyee mission bi nga ma yónni ñu ñaanal sëriñ Ibrahima miit fa tabaarakalaay yàlla yàlla doon Moussa nag su ma la joxee kattan te joxuma la muñ réew mi tas kon sëñ Ibrahima noo ngi lay ñaan bu la yàlla defalee kattan yàlla la defal buñ Moussa sa ñetteelu ñaan mooy lan mu ni ko dama lay ñaan xam-xam mu ni ko Moussa su ma la mayee xam-xam bu àndut ak jëfe du jariñ dara ñoo ngi lay ñaan sekk xam-xam bi la yàlla jox nga di ko jëfe fii ñëpp di ci jariñu yàlla na yàlla def nga gën koo mën a konti gën koo liggéey benn bi ci des mu ni ko jeex mu ne ko kudur góor goo fi gis dina jeex ba bu des sama gis man yàlla waaye yow Moussa sa ngóor ba kër ngay dugg bàmmeel du jeex ñoo ngi la koy ñaanal yàlla ko yàlla defal bi jaay si daam salaa salaam ñun nag taxawaay ci cuuti naa ibu faa'il lanu naa ibu faa'il ñi jàng ñoo ko xam ku jàngut grammaire mënoo koo xam bu na faa'il def noonu lay def mi ngi mel ni ñu naa imam ak naa ibam waaye naa ibul faa'il bu rafaa mu rafaa man nag tey palaasu rafaa laa taxawee ku ne xam na ne saw ma yëkkatee sama kàddu Serigne Mori Diouf fa tabaarakallaahu mu nekk jëmm joo xam faa'il la woon ñu nekk fi ñun di naa'ibu faa'il kon fa tabaar faa'il na lool waaye naa'ibu faa'il ji man bu léeg sax xañ na mu kasara wala mu sikkoon waaye naa'ibu faa'il naa'ibu faa'il rek lay doon rafaa rek lay def ñun nag xam na matuñu loolu waaye ñu kaddu nag ci njaboot nga xam ne ñu kadda ngay muqaddam imam Mas Diagne bul fa kenn desut ñëpp ñëw angulee kenn desut kenn desut waa kër mam Bamba Ñang moom mii moo fa deman sëñ Omar Ñang xalifa ba yebal daayira ba nga xam ne moo nekk ca gay ñu àndaat ak ñun ñëw imam Bamba mi gi ni toog yor jàkka ja nga xam ne moom la fa maam Ablaye Gueye moom nga xam ne moom la fa së góor gu mag tegan moom la fa sëñ Bamba tegan moo ko yor kon ñun ñi nga sant li wax nag mooy tey jii dama ne badar la tey moom badar la xasa yum dit kum rabbukum bi xamsati alafin min al malaykati gisu leen ko waaye am nañu ko gis jullit yi bu dee xeex di 313 yéefar yëpp leen fuuf ñu taxaw xeex yàlla ne leen xasa yum dit kum rabbukum bi xamsati alafin min al malaykati tey feeñ na fii ci cuuti ku da gis xam ne li taxaw ñu di ko dóor te xoola malaaka yi faddi riboo faw xalaq na ñun ay gub la ñuy loolu lan lu sant ñu taxaw tey tiim gub yi di leen dagg di dagg boo mu jeex tàkk benn gub de sut kon xalila def feetan kasirata bisimilahi wallahu ma sabirin kon lii muñ rek moo tax ñu may ko waaye ko ne xam ne ni jëmm ju taxaw ca suba ba tey di liggéey ndox rek kay dugg sa gémmiñ xam nga ne am na lu ko waral xam nga lu ko waral Baye Abdou kenn du ko fàtte nit lu mu am na ko gërëme ñaari waajuram cuuti tey bu manee mel nii sëñ Ibrahima toog ñëpp toog mbooloo mépp toog am na lu nit nag boo amee la tax mu am day daf ko war a xam ñun nag xam nañ li tax mu am kon sëñ bi ñoo ngi lay jaar yaag say rek sëñ Muudu ñëw na ca jumaa ja jotal na lu bari tey jii dama ne bu ma doon way dama naa xaadir yi ñëw nanu Tijaan yi ñëw nanu asmaalik yi ñëw nanu xaadir yi ñëw nañu ñëpp ñëw nañu tey murit yaa ngi nii tey tey kenn desut Baay Faal ñëw nañu tey jii damaa man gàmmu Seydunaa Muhammad salaam aman naa soixante aman yoo xam ne direct Mouhamad la gàdd tey jii ko war na gàmm téeméeri Mouhamad ak juróom-ñaar fukk ku ko am di leen gàmmul ñeenti gàmm ñeenti at a ngi di jundele yoo xam ne direct la loo xam ne waa gàdd ñoo ko def bisam bii nag moo tax ñu fomm ko def ko biig fa tabaarakallaahu moo tax ba muy xiine ma ni leen may wooy mën naa leen su neexee yàlla mu xiin door ay dóor ay kënoom dóor ay mele xatam waaye bu ko neexee du taw nañ leen téye baas bi ñu téye baas bi galaw la noonu la fa jaar jàll ñu gàmm ba gàmm ga jeex mu andi ko fii ci cuuti bët se cuuti cuuti sedd guy kon am la lu tax fa law kon nag digg yëpp ñi ngi nuyu sëriñ bi di ko ñaanal waa ñi ngi nuyu sëriñ bi di ko ñaanal waa bul fa ñi ngi nuyu sëriñ bi di ko ñaanal waa euh, guyaar ñu ngi nuyu sëriñ bi di ko ñaanal waa kër Njaga Sa noonu kon fa tabaarakallaahu ñoo ngi ñaanal nag sëriñ Mori Diouf yàlla yeewoo Eliina tante bu nu tante gàdd bala noo bàyyi ñëpp jooy ndax daan wax ci moom loo xam ne bu nu ko waxee billahi ñëpp ñoo ñëppay jooy ñëppay jooy laa la wax billahi Mori jàmbaara ngoog ku kenn mënta dab ci saay rek ci baatin ci wax ak ci jëflanteel ci yar ak lépp kon sëñ bi fa tabaarakallaahu ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal mbooleem ku fi ñëw yàlla na yàlla faj sa aajo man kaana fi aajati ak yi kaana laaw fi aajati sa aajooy mbokk ku ca nekk yàlla nekk say aajo ba nu xëyee ba tey ci aajooy kan la nu nekk aajooy sëñ Ibrahima waaye nag aajooy sëñ Ibrahima mooy sunu maam mooy sunu aajo benn yar bu wadd rot nit for ko jox ko waliyu mu cay dàq mu ne ko dig naa la ci àjjana waaw ki liggéeyal waliyu lu ëpp muuri nag boo gisee ñu koy fàttaliku leen rek la yonent bi salaa salaam daa toog ak ay sama yàgg mi fàttaliku Sayyidatu Xadijatu ba ay sa naa ko xaw a mel ni ko xaw a fiir naa ko waaye wow ki nga xam ne ba mu dee ni mu yàggee nga di ko fàttaliku lu tax mu ni ko daam ma defal moo tax ma koy fàttaliku waaye Serigne Mori Diouf daam lu mu defal waa cere ba am lu mu defal waa gàdd moo tax donc fàtte wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ndax fi mu ne ah Talla Gueye waaw waaw ñooñu ñëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di bu baax di sant Ibrahima Diagne. sant nag Ibrahima Diagne. yàlla def na muy sama xarit. yàlla def na muy sama xarit. ba ñuy tuut tànk ba léegi ñuy ànd ba ñuy tuut tànk ànd. tey jii tuddante nañu ay doom. ba tey jii tuddante nañu maa moom ay doom. kon moom. kon moom. maa ngi koy sant bu baax. maa ngi koy sant bu baax. lépp lu xew cooti. lépp lu xew cooti. maa koy bañ a wax sax a wax sax waaye su ma ko waxee waaye ma ko waxee lu jàpp lu jàpp da koy bàyyi da koy bàyyi ñëw kon maa ngi koy sant bu baax kon maa ngi koy sant bu baax maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm Talla Gueye Talla Gueye maa ngi koy sant maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm ndax lii muy def ndax lii muy def njëkkul tey njëkkul tey bi fi Baye Abdourahim nekkee bi a a muy cooti muy cooti muy canaba muy canaba ma nga ca ma nga ca kon taala kon suñu taala yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla fay la am naa samay mbokk yoo nga xam ne ni muy waa Golla Gollami. suñu waa Gollami. sëñ Mor Lo ñoom. sëñ Mor Lo ñoom. ak ñoom Aale. ñoom Aale. ñoom Baytiir. ñoom Baytiir. maa ngi leen sant. sëñ bi ne sant. ndax nit ki. ndax nit ki. Euh, li nga ko lim lay defal. lim lay defal. faaw nga sant ko ci. faaw nga sant ko ci. di ko gërëm. di ko gërëm. fii lépp lu fi xew. fii lépp lu fi xew rek. ñoom ñooy ñëw. ñoom ñooy saytu ko. saytu ko yor ko. yor ko ba mu àgg. ba ñu jébbal ma lépp. jébbal ma lépp. ba ci gàmmu gii. lépp lu demee ci kër gi. ñoo ko yor. ñoo ko yor defar ko ba mu rafet. defar ko ba mu rafet. tàllal loxo. tàllal ñaanal ma ni ñaanal ma. ma delluwaat ñu delluwaat. te njëkkee wuñ ko tey njëkkee wuñ ko tey jii. bañ koy def bañ koy def. sama papa ngi dund. waajuram mi ngi dund. tey jii. tey ñu feddliwaat. feddliwaat. gis nga bi ñu yëgee santaane bi. gis bi ñu yëgee santaane bi. fajar lañu egsi. fajar lañu egsi kon ñoom. kon ñoom. liggéeyaluñ ma. seen bopp la ñuy liggéeyal waaye ci waaru Baye Abdourahim lañ koy liggéey waaye ci waaru Baye Serigne Abdourahim lañ koy liggéey yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen yal na yàlla taxawu na yàlla taxawu leen yal na yàlla maa sant waa Thiénaba maa sant waa Thiénaba am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne samay baay lañ samay baay lañu samay xarit lañ samay xarit lañu samay wóolóore samay wóolóore lañu ki ci njëkk muy Baye bu jëng ki ci njëkk muy bu jëng maa ngi koy sant bu baax maa ngi koy sant bu baax maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm moom dañoo bëgg dañoo bëgg moom dañoo bëgg ba ñu ko suñu su ma nuyoo su ma nuyoo lim may njëkk a lim may njëkk a laaj ana Mouhamed ana Seydina Mouhamed moom la may njëkk a moom la may njëkk a laaj Mamadou mi Mamadou mi bu ma nuyoo woon moom léegi ma nuyoo moom léegi bu ma ñëwaatee bu ma ñëwaatee loolu la may waxaat loolu la may waxaat kon bàyyi bu kon bàyyi bu ñoo ngi koy sant ñoo koy sant ñoo koy gërëm ñoo koy gërëm ñoo taw bi fii la ko fekk taw bi fii la ko fekk mu ñëw indi tiraanga mu bari yàlla na taxawu ko yàlla yàlla taxawu ko yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sàmm ko ku demee ni ñoom Abdou Fall Dieng ku mel ni Baye Abdou Fall Dieng ñoom Maam Taala ñoom Maam Taala ñoom ñëpp fii lañ yendu ñoom ñëpp fii lañ yendu samay ndijaay samay ndijaay ndijaay ndijaay Bada ndijaay Bada ndijaay Ibbu ndijaay Ibbu ak Imam Dam Imam Dam Kule ñoom ñëpp ñëpp euh, Imam leen di gërëm maa leen di gërëm ndax ñoom ndax ñoom ñooy samay ndijaay ñooy samay ndijaay waaye nag waaye nag seen taxawaay ci man seen taxawaay ci man seen mbëggeel ci man seen mbëggeel ci seen jàppale ci man na yàlla fay leen yàlla fay leen ko yàlla na yàlla taxaw leen yàlla na yàlla taxaw leen sant Baye Talla Dia ndax yëgle bi man daanaka waxuma ko kenn waxuma ko kenn moom Mamadou moom suñu Mamadou ñoo demoon ñoo demoon fépp fépp fu ñu war a dem fu ñu a dem rek dem nañ dem nañ fa kon ñoo ngi leen di sant kon ñoo ngi leen di di gërëm ñu leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal yàlla leen di ñaanal yàlla Serigne Cheikhou ñoo ngi koy sant ñoo koy sant ñoo ngi koy ñaanal ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla taxawu yàlla yàlla taxawu ko waaye nag waaye nag ñuy sant ñuy sant Serigne Ñaaxa Serigne Ñaaxa sunu mag la sunu mag la sunu xarit la sunu xarit la sunu wëllëre la la ñoo ngi koy sant bu baax ñoo bu baax ndax li li ëpp solo ci nit. ndax li ëpp solo mooy oyof. mooy oyof. nit bu oyofee. nit bu oyofee. laneen luñ ko waxal ci lu baax. laneen luñ ko waxal ci lu baax. mën na koo am. mën na koo am. ndax diis. ndax diis. yàlla na yàlla musal ñu yàlla na yàlla musal ñu fi mu ne am néeg bu doon lakk fi nga am néeg bu doon lakk lépp lu diis rek lépp lu diis rek day lakkaale day lakkaale lu oyof la la ñuy daw génne la ñuy daw génne yàlla na yàlla fay ko yàlla na yàlla fay ko yàlla na yàlla taxawu ko yàlla na yàlla taxawu ko yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla barkeel ko maa ngi sant samay rak maa ngi sant samay rak la commencé ci alpha la commencé ci alpha ba ci sëñ Babacar ba sëñ Babacar ñoom ñëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di gërëm wettali nañ ma wettali nañ ma jàppale nañ ma jàppale nañ ma taxawu nañ ma taxawu nañ ma lépp loo nga xam ne lépp loo xam ne wax naa ko wax naa ko ñoom ñoom na gën a rafet nu mu gën a rafetee na gën a baax na gën a baax la ñuy def na leen koy defee kon maa ngi leen sant bu baax bi ne baax maa ngi leen di gërëm maa maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp di nuyu sëñ Ibrahima Sawaare. nuyu na di ko sant di ko sant. ci taxawaayam. taxawaayam sëñ Aliou Dione. Aliou Dione sëñ Ibra Faye. Ibra euh, Samba Aan di Samba Aan. sëñ si Diagne Pape Diagne. ñu Pape Diagne. ñoom ñëpp ñoom ñëpp. di sant di nuyu tamit. di nuyu tam. sama dëkkandoo. sama dëkkandoo. sama wóolare sama wóolare. muy ngañ Bamee. muy ngañ Bamee. sëñ Seega Alaaji. Alaaji. yéen ñëpp jibi. ñëpp jibi ñëpp ñëpp ñëpp. ma si bàyyi lay sant. maa ngi gërëm maa ngi gërëm. kenn ku ne. kenn ku ci nekk. mën naa saw tur. waaye sant naa. waaye sant naa. gërëm naa. mbokki gàdd. mbokki gàdd. maa ngi leen di sant. maa ngi leen di sant. maa ngi leen di gërëm. maa ngi leen di gërëm. di sant sëñ Omar Niang. sant sama xarit la. sama xarit la sama wëllëre la sama wëllëre la. ku ma bëgg la. ku ma bëgg la. ku may jàppale la ku ci lu bari ci lu bari. santaane bii. bii. moo daan joxe ndigal. moo daan joxe ndigal. sëñ Isaaxa. sëñ Isaaxa ànd ak ñoom. ànd ñoom ñëw ñëw. tey jii tey jii ñuy def kaamil euh, papa Baye Jama ñuy def kaamil Baye Jama loolu moo waral waa Kër Ndiaga Sarr gisu leen loolu moo waral waa Kër Ndiaga Sarr leen waaye daf maa woo waaye daf maa woo bi nekk gàdd ma daayira bi nekk gàdd dinaa leen woo dinaa leen woo yabal leen yabal leen ñu ñëw ñu ñëw loolu mu ma waxoon loolu ma waxoon gis naa leen gis naa leen maa ngi leen di sant maa ngi leen di sant yé bu ngeen demee bu ngeen demee ngeen santal ma Serigne Omar ngeen santal ma Serigne Omar yal na yàlla fay ko yal na yàlla fay ko yal na yàlla taxawu yal na yàlla taxawu ko yéen it yéen it yal na yàlla dooli seen kàttan yal na yàlla dooli seen kàttan yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla sant jigéen ñi jigéen ñi fépp fu waay jógee fépp fu waay muy canaba muy canaba muy xay muy xat muy gàdd muy gàdd muy ngule bul fa bul fa jigéen ñëpp jigéen ñëpp ak jigéen ñi jógee ci tund wi ak jigéen ñi jógee ci tund wi maa ngi leen jigéen ñi am ci kër gi sama soxna yi ne ci leen di sant maa ngi ndax fii ndax fii neexul neexul daara la daara la waaye nag waaye nag lu ñu man lu ñu man seen kéemtalaay gàttal ñoo ngi koy def ñoo ngi koy def kon maa ngi leen di ñaanal yàlla ko su mel ne maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla defal leen fi liggéey bu sedd guy yàlla defal leen liggéey bu sedd guy defal leen fi ndam defal leen fi ndam defal leen fi mucc defal leen fi mucc defal leen ci njaboot defal leen njaboot gu barkeel te ñu bokk ko te ñu bokk ko mboolem sama soxnay rakk yi mboolem sama soxnay rakk yi ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoo yem ci man ñoo yem ci man maa ngi leen di sant maa ngi leen di sant bu baax di sant samay waajur yi sant samay waajur yi sama tante yi sama tante yi maa ngi leen di ñaanal maa ngi leen di ñaanal gudd fan gudd fan ak wér ak wér yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla fay leen maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp sama xol sama xol sedd na sedd na di sant Talla Thiaw sant Talla Thiaw maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm yaa ñu boole yàllaa ñu boole ba mu ñëwee ci sama papa mu jël werd di jël werd sama papa da koo jox werd ni ko Ibrahima laa lay booleel moom xamoon na lii xamoon na lii waaye taala waaye suñu taala di ki nit ku baax nit ku baax di nit ku am kóllëre nit ku ma bàyyi xel ba moo tax bi muy yeesu bi sama papa jógee bi sama papa bi mu jógee muy yeesu muy yeesu daa ànd ak papaam baara caw daa ànd ak papaam baara caw ni damaa bëgg a yeesu damaa a yeesu ci sëñ Ibrahima sëñ Ibrahima mu ni ko loolu nga def ni ko loolu nga def am léegi wala lu jiitu loolu wala jiitu loolu amul lu muy dugg amul lu muy dugg te man njëkkuma ca te man njëkkuma ca nekkuma ca digg ba nekkuma ca digg ba nekkuma ca mujjantal ga maa ngi koy sant maa ngi baax a baax di sant Arona Diop Arona Diop bu ngombel bu ngombel jëf bu réyee jëf bu réyee nag cant toll noonu cant toll noonu ñu boole Arona yàllaa ñu boole maa ko jox salaatul faatiha maa nawet bi lépp nawet bi lépp alarba ju jot alarba jot fii lay lay xëy kon maa ngi koy sant kon maa ngi koy maa ngi koy gërëm maa ngi koy gërëm maa ngi koy ñaanal yàlla maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla fay ko yàlla sama njaboot gi ma nekkal ci njaboot gi ma nekkal ci kër gi muy ñii di ay surga muy ñett ay surga ñii di rak ñii di ay rak ñii di jarbaat ñii di jarbaat maa ngi leen di sant maa ngi leen di ñëwee bu ngeen ñëwee fekk tool yi mel nii fekk tool mel nii ñoom ñii ñoo jàmbaar ñoom ñii jàmbaare nag waaye suñ jàmbaare nag bu ngeen ñëwee bu ngeen ñëwee cib xaaxam ngeen ngeen fii fekk waaye ñoom. waaye ñoom maa ngi leen di sant. maa ngi leen di sant ndax li ñu li li sedd seen def loola. ñu def loola maa ngi sant. kon maa ngi leen di sant bu leen di gërëm. maa lii ñu liggéey. lii ñu liggéey. pas pas pas pas. ak yéene ak yéene moo tax ñu liggéey ko moo tax liggéey ko waaye du seenu kàttan waaye suñu kàttan waaye ak nangu ak nangu ak bëgg lu baax ak bëgg lu yàlla yàlla fay leen yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla taxaw leen yàlla na yàlla taxaw leen maa ngi sant ñëpp maa gërëm ñëpp maa gërëm ñëpp am na ñoo xam ne dinaa leen sant dinaa leen sant ndax man ndax man li may wax li may wax ku ma defal lu baax ma defal lu baax dinaa la sant dinaa la sant ku ma defalul it ku ma defalul it la xas du la xas loolu la ma yàlla bindee loolu la ma kon manit kon manit damaa am am ak njaboot. bi ma amee ak njaboot. bi ma amee ak njaboot. njaboot googu ma am njaboot ma am. donte nekkuñu donte nekkuñu fi. ña xool sama bëgg-bëgg. ña ngay xool sama bëgg-bëgg. xool sama yéene. ña ngay xool sama sama santaane bii. bi ma ko santaane. bi ma ko santaane. sama soxna si nekk Espagne. si nekk Espagne. ak doomam. ak doomam. dara bul ko ci def. dara bul ko ci def. ñoo ma yónnee lépp ñoo ma lépp maa ngi leen di sant kon maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di gërëm noonu ma leen sant noonu ma ñoo ma amee su ma amee su ma ñàkkee su ma ñàkkee ñu muñ ñu muñ ànd ak ngor ànd ak ngor kon sant maa leen di sant maa leen di sant maa leen di sant maa maa leen di jaajëfal maa ngi leen Omar Ndiaye waaw waaw sëñ Omar Ndiaye. sëñ Omar Ndiaye. maa ngi koy nuyu moom it. maa ngi koy nuyu moom itam. sunu dëkkandoo la dëkkandoo la ndax dëkkandoo sëñ Ousseynou. dëkkandoo sëñ Ousseynou la. waaye gis nga ko mu ñëw. gis nga ñëw soo ba léegi kon maa ngi koy sant maa ngi koy sant maa ngi gërëm. maa ngi koy gërëm. mbokki ñaange Dakar yi mbokki ñaange Dakar yi. ma Diop ma Diop ñoom ñëpp ñoom ñëpp sant na. Serigne Sob Dia Serigne Sob Dia doomu Baye Omar Dia doomu Baye Omar Dia moom it ñoo ngi koy sant moom it ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm ñoo ngi koy gërëm teel na fee ñëw teel na fee bu baax ñoo sant bu ñëpp ñoo ngi ñaanal ñëpp ñoo yal na yàlla fay yal na yàlla fay leen yal na yàlla taxawu leen yal na yàlla taxawu leen waaye manit waaye manit damaa am sama mag am sama sama mag soxna mbenooy soxna mbenooy maa ngi koy ñaanal maa ngi koy ñaanal ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay waaye taxawaay bi mu taxaw waaye taxawaay bi mu taxaw nag taxawaayu baay la taxawaayu yaay la taxawaayu baay la taxawaayu baay la taxawaayu yaay la taxawaayu yaay la ndax ñooñu luñ doon def ci man ñooñu luñ doon def ci man rek mi ngi koy def ci man ngi koy def ci man kon moo tax kon moo tax donte jigéen la donte jigéen la taxawaayu yooya taxawaayu yooya laa koy jox laa koy jox yal na yàlla taxawu yàlla taxawu ko yal na yàlla fay ko yal na yàlla fay ko lépp lu mu yor lépp lu mu yor xanaa man ma bañ a bëgg xanaa ah, man ma bañ a bëgg rek lu ma lu mu yor waaye lu mu yor ma bëgg ma bëgg maa moom maa moom loola kon maa ngi koy sant kon koy sant bu baax koy gërëm léegi ñaanal yéen ñëpp léegi ñaanal yàlla defal ñu faju aajo ci biir ak ci ak ci biti réseau bi réseau bi Thiénaba TV Thiénaba TV Thiénaba maa ngi leen di nuyu maa ngi leen nuyu la commencé sëñ Alpha commencé sëñ Alpha sëñ Njàmme sëñ Njàmme ñoom ñëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di gërëm réseau TV. man Thiénaba TV. sama Thiénaba TV la. ndax man lu ma ci bëgg. ndax man lu ma ci bëgg rek. ñu fekk si ma ci loolu def ko. nu kawe sama njor kon maa leen ñaanal. kon fi maa ngi leen ñaanal. fépp fu ñuy dégg télé. fépp fu ñuy dégg télé. ci àdduna bi ci àdduna bi. leen fa dégg fu ko raw fu ko raw. yàlla na yàlla fay leen. yàlla na yàlla taxawu leen. daaba yi ngeen dugg. daaba yi ngeen dugg. yëpp dellu ci jàmm. yi ngeen di dajeel. yi ngeen dajeel. yàlla na yàlla defal leen